di euh, Bah Diakhaté naka tey ji présenté nañ ko li nga xam ne nag moo di procureur ba finalement dafa mujj am li nga xam ne nag moo di retour parquet tey ji nan nga jàngatee arrestation wu ki nga xam ne nag moom moo di euh, Bah Diakhaté ak retombées yi nga xam ne nag mi ngi si am rawatina ñi nga xam ne tey ji ñu ñoo faree ci parti bi di APR. si la mhm. bu doon dëkk bi. depuis euh, le Sénégal et Sénégal. Mhm. bu doon justice mi ngi dox convenablement Bah Diakhaté bi ñu ko waree woo dafa yàgg. Mhm. am na yu bëri yoo xamante ne parce que man am na benn vidéo bu ñu ma envoyé venant euh, ñu ne Bah Diakhaté la mhm. ma xool vidéo bi ma gis ne lu yàgg la ah, ma ne ko dëgg la mhm. lii je pense que la vidéo en question war na def un an wala deux ans mhm. mais ces faits là sont amnistiés xam nga xam nga lu jéggi 24 mars loolu yëpp amnistié nañ ko mais li nga xamante ne tey jii nii euh, bokkul ci loi d'amnistie mooy képp ku atteindre yow sa honneur ak sa considération c'est-à-dire euh, loi d'amnistie fait yi nga xamante ne dafa relatif ak ay euh, truc politique uh-huh. mais Bah Diakhaté euh, récemment jël na ay wax ju ñaaw comme ni mu ko yàggee def nag uh-huh. teg ko ci deru Ousmane Sonko te ñun li ñu doon xeex boobu mosoo maa dégg ma défendre un insulteur musoo uh-huh. maa dégg ma défendre kuy taas taal wala kuy toj jamais de la vie xam nga lan moo waral loolu noonu parce que jàpp naa ne ay position de principe lay défendre di taal di toj di saaga duma ko cautionner ak kenn. xam nga lan lañ doon condamné xam nga lan lañ doon dénoncé à l'époque. mooy da nga euh, Ousmane Diagne dafay publier ñetti émoji ñu dem jàppi ko. nga gis kuy taxaw di ne kaañu rey yi Ousmane ko kenn defu ko dara deux poids deux mesures yooyu noonu ngay gis benn oustaz Assane ko wax benn affaire un maire wax pire que ça. ñu tëj kii bàyyi kii. loolu lañ doon dénoncer c'est-à-dire justice boo xamante ne da doon dox à double vitesse. boo faree ci Pastef tu es bu dee da ngay soutenir Ousmane Sonko tu es privé mais bu dee danga ànd ak régime bi lu la neex wax ci ku ne dara lu la ci fekk nañu rey Ousmane Sonko dégg nga ko fii nii dégg nga ci baajaxate moomu muy wax di tudd yaayu Ousmane Sonko. tudd papam tudd euh, ay soxnaam gis nga ko fii wala gisoo ko fi. pourtant amul kenn ku ko mës a inquiéter sur quoi que ce soit loolu Sénégal dafa war a mën a continuer doxee noonu. dañoo war a mën a am justice bu taxawee noonu c'est-à-dire Ousmane Sonko daal moom mooy ki nga xamante ne mën nga jeew lu ne nga yekk ko ko ci lu bon di doxi say soxla alors que kenn bu jugee ne d'accorduma ak régime bu Macky Sall tey euh, caabi féetee la ginnaaw loolu justice la. loolu lañu wax ne moom moo jeex tey jii nii. à l'heure où on parle ci système judiciaire bi nga xamante ni moom lañ bëgg Ousmane Diagne mi nga xamante ne actuellement muy euh, ministre de la justice. li nu bëgg ci moom mooy justice bu équitable képp koo xamante ne saaga na ak koo bëlti saaga yoon daf la war a féetee ginnaaw parce que infraction la caabi a féetee ginnaaw parce que c'est une infraction parce que waroo saaga kenn a fortiori nga taxaw nag di jeter le discrédit su des personnes qui incarnent les institutions démb bañ doon saaga Ousmane Sonko di ci ami promotion loolu wonni na askan bi moom moo ne Ousmane Sonko la wóolu dénk ko euh, mu définir la politique de la nation si je parle de Sonko mooy je parle de Diomaye Diomaye mooy Sonko bul fàtte ah. loolu. donc kon nga taxaw di ko wax lu la neex ci nu mu la neexee après bëgg a génn doxi say soxla nu mu la neexee nag mënut nekk. déedéet alors ku mu mënti doon muy opposition muy pouvoir. ngay taxaw di saaga ay nit bu leen nit kooku noonu amul benn institution bu mu incarné bu jugee porter la plainte pour diffamation da ngay tëdd parce que yaa ko def kuy di def ay injures publiques di diffuser de fausses nouvelles. après ñu war la bàyyi ngay doxee noonu ba kañ. ba kañ quoi alors bu boobaa la xotti code pénal bi taal ko. ba njëriñ la amati bu dee code pénal bi dafa nekk fii les incriminations sont là les peines d'emprisonnement sont là yooyu noonu yëpp nekk fi mais duñ ci appliquer benn kon kay nañu xotti yëpp code pénal bi fas si la moom li mu def képp kuy jug di ko soutenir na jug def ni moom seet ndax li ko dal du la dal yow mais c'est-à-dire yàgg naa koy wax ce n'est pas une première fois remonteel samay vidéo depuis mars 2021 mmh. et li ma wax je le maintiens l'APR ça mérite ça une dissolution dañ at parti boobu la war a dissoudre uh-huh. APR ah, waaw parce, parce que fii nga gis ay oto yu nervi di dugg seen siège gis nga ko wala gisoo uh-huh. les vidéos sont toujours là pour en attester avec euh, l'article du Monde uh-huh. fii ngay gis ci biir siège u APR nit jug na la nañu taali kër Ousmane Sonko des membres identifiés de l'APR naan nañu rey Ousmane Sonko loolu xanaa du mouvement insurrectionnel ñii bu doon régime bi leen wuute danoo meloon ni ñoom tey jii ñu ngi naan ndem si yàlla APR xam nga ñoom ex Pastef leen doon wax. mais ndem si yàlla APR ñu suul ko fàtte ko. parce que seen i wax seen i jëf dafa mujj yi tout nekk loo xamante ne lu yee fitna ci réew mi la. alors donc on va doit les mettre hors d'état de nuire defuñu loolu président Diomaye le premier ministre Ousmane Sonko xam ne challenge bi leen war actuellement mooy de subvenir aux besoins des sénégalais nekkuñ ci parparloo nekkuñ ci fayonte ñu jug song la problème des sénégalais xanaa yéen ngeen mën a tëj seen làmmeñ ndax daf def ngeen fi lu ne weng mën a tëj seen làmmeñ ndax def ngeen fi lu ne weng kenn toppeewu leen ko respecter la loi si mais Bah lu mu nekkul di wax ci euh, Kaba Diakité au moment au Kaba était euh, en de vivre un séjour carcéral très difficile. Uh -huh. lu mu ko waxul ci xotti war ma lu mu ko waxul ci atteindre à sa vie privée ak ñeneen ak ñeneen Fulbert Sambou Didier Badji ñeneen ak ñeneen ku ci nekk ku wax lu d'accordul ak Macky Sall mu jug yëkk la lu mel ni xeme uh-huh. mais loolu fii la xewee alors yow askan bi muy parti APR soo candidat amadu Ba ak ñi ko askan wi ne leen bëggatuñu leen ngeen jiite ñu seen projet de société doyu leen doyu ñun sénégalais yi wóoluwuñu leen 54 pour cent des votants ne le président Diomaye la bëgg projet pour un Sénégal souverain juste et prospère moom lañ bëgg mu dox. ñoo ñu ñëw nekkuñ di leen topp ci par parloo di doxal ci Sénégal ngeen bëgg a continuer nag euh, ci pouvoir bi ngeen nekkoon noonu. bëgg a ñëwaat ci opposition bi bëgg a wéyaale noonu jusqu'à quand alors que la rupture elle est là au-dessus de, euh, de notre conscience. Uh-huh. war a ñëw pour une justice équitable pour tout le monde ngeen bëgg a taxawaat di saaga ay nit dara lu la ci fekk loolu nu mu mën a nekk. ce n'est pas possible donc je précise. Mhm. je persiste et je du Ousmane sonk premier ministre du président Diomaye kenn ku ne. Mhm. justice demal nga jàppi baajaxate amul. ku la wax loolu waxu la lu doon ñooñu yëguñ sax li xew. Mhm. lijjanti wuñu Bah Diakhaté ñu ngi lijjanti problème mu sénégalais mais une justice qui marche normalement une personne qui dit ces horreurs-là ne doit pas rester chez lui te loolu moom moo xew mmh. euh, Pape Moussa junj nga ko léegi sa biir wax muy euh, disparition ki nga xam nag moo di Fulbert Sambou ak Didier Badji euh, tey gis nga noonu li nga xam ne nag moo di page observation des droits humains de la bonne et de la bonne gouvernance euh, nu ñuy xamal ni l'arrestation de Bah Diakhaté euh, un bon début d'une enquête criminelle sur la mort et la disparition respective de Fulbert Sambou et de Didier Badji ñoom jàpp na ni ñu tegee loxo ki nga xam ne nag moo di Bah Diakhaté lu baax la pour mën a ubbi li nga xam ne nag moo di enquête ci euh, disparition ki nga xam ne nag moo di Fulbert Sambou ak Didier Badji si jeexantalu page bi ñu ngi nuy xamal ni boo moytuwul ki nga xam ne nag moo di Bah mën na nekk complice wala kenn ku xam dara ci li nga xam ne moo di boobu disparition journaliste bi euh, couvrir ko tey jii nan nga mën jàngatee euh, kàddu yi nga xam tey jii gis nañ ko fële ci observation des droits humains et de la bonne gouvernance ginnaaw bu ñu sukkandikoo ci ki nga xam nag mooy docteur Mbaye Cissé nekk chercheur spécialisé en études de droit. xam nga tu bien fait de rappeler la loi d'amnistie. Mmh. l'affaire Fulbert Sambou et Didier Badji ont été couvertes par la loi d'amnistie. donte man gëm naa ni cette loi d'amnistie dan ko war a abroger wala ñu modifier ko pour mën a permettre à tous ces crimes de sang la ñu xam situer les responsabilités. c'est une première chose. alors euh, dans cette affaire Bah Diakhaté qui ne concerne pas la loi d'amnistie moom mmh. il parlait trop de l'affaire Fulbert Sambou et Didier Badji lui il en parlait beaucoup wax na ci lu bare bare bare bare donc sax suppose que xam na ci dara c'est le moment la nga xamante ne moom xam na ko ci mu waxaale ko aux enquêteurs par ricochet ça va nous permettre de connaître euh, beaucoup de choses dans cette affaire bu doon li mu doon wax c'est documenté mais xam nga man. Hmm. Euh, moom yàgg na may wax lu nekk. Hmm. te li muy mooy wax man ma xam ne du dëgg. kon it la mu doon wax ci euh, kaabale it du dëgg rek laa ko mën a jàppee. Hmm. mais euh, ci affaire boobu noonu l'enquête ne concerne pas euh, ces deux hommes de tenue là. l'enquête ne concerne pas ça l'enquête concerne autre chose mais bu dee mën na cee ci biir dossier bii nii ñu waxaale lu ci ba ba ba ba ñu am piste d'enquête dina baax mais euh, man jàpp naa ne li gën a mën a leeral lii leeral yeneen cas tamit mooy euh, la modification ou l'abrogation de la loi d'amnistie. Mhm. xëy na ñu ngi koy xaar kanam bu fekkee euh, régime en place am na majorité fële ci assemblée nationale. incha loolu après lay doon. mais tey jii gis nga ki nga xam ne nag moo di Imam Ndao bu mu jàkkaarloo ki nga xam ne nag moo di enquêteurs yi euh, d'après information yi nga xam ne am ko daf doon présenter li nga xam ne nag moo di ay ay ay est que tey jii loolu mën na ko